قريب بجاي المصطفى ndox ñu boole ci saabu teg ko ci bépp bunt bu nekkee ci jumaay Tuuba ngir ñii di taalibe yi mën cee raxasu bu loolu weesoo balaa dugg ci biir war na it bépp taalibe mu takk maskam te it di jëfandikoo gel hydroalcoolique

jën nañ ko te lépp ñu ngi ko jëlee ci ndigalul docteur ak ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci wàllum masque yi masque yi am nañ ci mën naa ne lu doy sëkk loo xam ni mën naa mën naa dem lu yàgg-yàgg te du jeex magal gi sax mën naa dem bàyyi ko fi ñi nga xam ne jëmmi Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom andi na ko fi moom moom bokkut ak yi nga xam moom la fi yeneen talibé talibé andi ndax am na ñoo ci xam ne buy ñëw di màggal si dañu àndaale ay paquet masque yu bare bare yoo xam ne mi ngi fi motax tax masque moom doy na sëkk te ñu ci bari bëri ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha li nga xamni ne nako ci bari bari respect nañ ko Cheikh Mamadou Mountakha andi na fi 250 carton alcosel mom jëm ci biir gande monsieur Touba fi ne nii ni may wax ak yow magasin dafa fess del magasin man maa man ma yor magasin mais magasin fi dafa fess del daanaka ba amuto foko tek ciet gi manam mesure d'hygiène yi ñii di talibé mourid yi paré nañu ngir taxaw ci temm te yit jëfé ndigal waaw dañuy joxé masque di bala nga dugg dañ la laal gel nga dugg loolu yëpp pour xeex alors propagation euh, mbas mi nga xam ne moo la ñu wax Covid 19. initiative yu baax la te am naa yaakaar ni su fekkee ne ni alors sax nañ ci bu soobee yàlla li ñuy wax daan corona daañ ko def ci anam nu mu gën a gaawee. fagaru moo gën faju comme ni ko sang bi waxee rek ndigal nag jëfe jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kenn du Cheikh Modou Kara Serigne Saliou Niang rax ci dolli nii. en même temps tamit bala ngaa dugg da takk masque boo takk masque comme nga yor sa kaala ndax ñu ci ne am na ñoo xam ne mënuñoo masque wu ndax da leen ni da leen fàtte wala yu noonu mu bu mboolem li nga xam ne waa ko docteur digloon digloon nañ ko rek ak si ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha lépp respecté nañ te murid itam nañ ko baax baax ndax xam nañu ndigalul sëñ bi te ñoom ñëpp ay murid lañ. Màggal Tuuba bu at bii